waaw man maay mbay Samb chef de village su Bangaaj euh, arrondissement de Thiénaba commune de Thiénaba dans le département de Thiès tey dama kontaan li tax ma kontaan mooy danoo am tey lu nu mësuta am li nu mësuta am mooy lan euh, depuis fanweeri at nu ngi ñaan courant am ci dëkk bi mënuñu ko woon a am ba nu toog tey yàlla indi ko ci dëkk bi nuy ñaanit dëkk yi nu wër ñu am ko comme ni nu ko amee. kon daal lëndëm jeex na guddi ci bangaaj. lëndëm jeex na guddi ci bangaaj tey waxuma la dara waaye li nu gën a amal importance mooy sunu gone yëpp ñu ngi bitim réew. te léegi internet la ñëpp di doxe moom la ñuy waxe te mënoo ko def lu dul da am courant poste ay euh, table solaire la nu doon am. buñ ci branché bala ngaa xool mbaa nga wax sa soxla image yi jeex tey nu dem ba yàlla jox nu courant ba bu nu uh, ubbee télévision mën a xool li am ci àdduna bi xool li am ci réew mi mën a wax ak sunu xale yeeg sunu nawle yi nekk bitim réew kon nun kontaan nan génn nañu ci gii guta noo ngi ñaan yàlla ak yonant bi jàpp jàppaleel nu sunu président Macky Sall ndax moom la yàlla tombeel mu defal nu lii yàgg nañ koo bëgg mu doon nu të dem nañu ba yàlla jox nu ko kon nu itam xam nañu li ñu nu defal lan la waaw. leeraay bi dina eh, waxuma la dara waaye guddi sama miir bi yéeg nañu ci jàpp ay xar génne ko ci sama wanag guddi te gisuñu leen léegi bu làmp tiimee nii kër gi fu waay jaarati ñu seen la. kon am na sécurité bi am na nu yaakaar bu baax ni dinañu am sécurité bu soobee yàlla. dëkk bi war naa mat téeméeri buntu kër ak ak ak ak ak juróom-benn ndax baŋaaj day juróomi amoo dëkk bu mag bi mu ngi nii waaye am na kër Malick Dieng am na Ndaam am na kër Mbayeen am na Daaru Sàmb am na kër Mbudu yooyu yëpp ci même village bi la. à ñi fi yeewoo. ci amoo yeeg lépp war naa mat mille euh, mille sept cent personnes. sunu yëngu-yëngu lan la. sunu ak càmm fii day dëkkub maraîchage sunu àll bépp fii mu ne bi ñu may woo maa nga ca xurwa doon defar samay tool yi kaani fa lañ ma wooyee ma jóge fa euh, ñëw fekk leen fii dañuy béy euh, bu nawetee ci joor gi gerte dugub ñebbe ak ñambi bu nooree heure bii noo ngi ci xur wi di béy kaani tamaate mari bépp légume boo gis marché Thiès wala marché Thiaroye bari na ci loo xam ne ci sunu xur wi lañ koy jëlee di ko yóbbu lii sunu jafe-jafe nag mooy ñàkk ndox ñàkk ndox ren ndox am na xur wi dawle na teen yi nu fi gasaloon sunu bopp lépp ndox mi màbbu na ko yoon wi loolu mooy sunu jafe-jafe bi nga xam ni wóor na président Talla Diagne mi toujours nu ngi koy Eh, eh, damaa juum sunu maire sunu maire la ma yóbbu mooy communautal yi jëkk ya te amatul eh, sunu wóor na sunu maire présidente sunu wóor na sunu maire Talla Diagne wax na ñun ci lu mel noonu waxati ñëw na wax nanu ko diis nanu ko ba tey Augustin mi fi nekk commune de force armée dëkk Fandène wax nañ ko ñi ñu ko war a wax ñëpp noo ngi yeeru noo ngi amit yaakaar ci ñoom yaakaar nañu ni incha allahu eh, li indi lii tànki kanam dina indi yu ginnaaw waaw noo ngi sant nag bu baax a baax taxawaayu sunu maire ci gox bi ndaxit it nag eh, wolof dani tombe moo waral ay gaaf ci ayam la yàlla indee lii te moo nekk ci bopp nit ñi kon bu nu santee président eh, Macky Sall ba pare. nu ngi sant gouvernement beeg ñi leen fi nekkal waaye ñu ngi koy sant moom mii nga xam ni moo jiite collectivité locale bi noo ngi koy sant bu baax noo ngi sant itam sunu sous-préfet bi ne fii ndax toujours lépp loo xam ni xam na ni jëm na fii lu mu ci mën a taxawee dina ko def eh, bi ci jiitu keroog mu fi ñu ko fi affecté muy Ahmadou Bamba Fall amu fi fukki fan ak juróom ñu indil leen fii machine wol keroog moom kera la fi jëkk a ñëw Eh, yàlla dogal na sous-préfet bi mu fi remplacé ne na fi ñetti at waxoon naa ko ni ko bés boo fi jógee dem bu ñuy sant man du ma la gërëm ndax ne fi ñetti at wàccoo ci tali bi ba ngaaj sa tànk mosoo fee jam xam naa ko waaye damay ki Amadou Bamba Fall a tax may wax Amadou Bamba Fall keroog mu wàccee rek la ko yàlla indi mu ñëw seet si ñu dikk taxaw. Eh, ak euh, yàlla dogal ñu doon indi fi ay machines yi wol machines yooyee ba ko indee keroog la wax ni autoroute à bi xam naa ni xawma ci biir dëkk bi xaw ma waaye ci suufus bangaaj lay jaar loole nu di ko topp di ko topp ba mu jaar ci suufus bangaaj ñëpp ni autoroute à péage du am nun ñi nga xam ni gëm nañu Macky Sall ak ñi mu àndal gëmoon nañu ni loolu dina am tey jaar naa fi fi autoroute bi jaar gis naa forage yi euh, Chine waaye di gas te gas forage kaste wàcc ko noonu taxul ñu gas ko li ñu war a limité jël nañu ko ñi ñu war a fay woo nañu leen xam naa ni bu ñu fayut ñëpp am na ci ñu ñuy fay kon gëm nañu ni autoroute à bi incha allahu dana am loole ba mu nu ko waxee nu gëm ko loole nu ngi koy topp mu ngi ñëw waaye li am solo daal. noo ngi sant gouvernement bi ci turu population Bangaaj ak population tund wépp noo ngi ñaan nag courant bii ñu indi fii ci Bangaaj noo ngi ñaan li nuy jëkke mooy amooy Bangaaj noo ngi leen di ñaanal ñu yokk réseau bi ba mu dem ce ñoom muy kër Malick Dieng muy Ndaam muy Mbayeen muy Daaru Sàmb ak kër Mbudu loolu ci biir Bangaaj la bokk bu jàllee réseau bi wàcc na euh, euh, transport bi wàcc na ndindee ngi nii jige nañu même pas un kilomètre kër mbay gee ngi nii njaaña ngi nii kër yoroo ngi nii kër Demba Anta ngi nii ñoom ñëpp dañoo wër dëkk bi te fenn amu ci courant noo ngi ñaan li ko indi fii yal na yàlla jàppale leen ñi ko def ba mu mën a jàll ba fu amul woon daal di am ci saasi waaw.